daa leen jàmm mbokki internet yi ñi nga xam ne yi saafoo di seetaan suñu Actu TV wax si nga xam ni nag jamono ji moom ba ñu bëri si askan wi di coow ginnaaw ba ñu génnee si nga xam ni moo di législative 2022 yi niki noonee ginnaaw ba nga xam ne askan wi ñu bëri demoon nañu daal di voté waaye boo woowee ba tey nga xam ni moo jaaxal ñu moo di résultat vote bi nga xam ni yeex na koo génn ba am euh, ñenn si yoo xam ni sax dañoo njorti ne loolee est-ce benn pexe si pexe yi nga xam ni dañ ko bëgg a teg ngir sàcc li nga xam ni moo di élection yi ngir ëppale li nga xam ni moo di ay député foofee ca Assemblée nationale rawatina ñi nga xam ni ñoo waa Benno Bokk Yaakaar kat yooye ba tey bi nañ ko si ñi nga xam ni ñoo di opposition bi rawatina waa yeewi askan wi ni ki démb ba doon def li nga xam ni moo di seen conférence de presse ba tey tey si suba ba ñu gisee ki nga xam ni moo di Déthié Fall moom tamit doon addu si mbir mu mel noone ñoom kat parewul benn yoon ngir bàyyi ak li nga xam ni moo di victoire bi ñeel ñi nga xam ni ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar parce que ñoom ñoo daanu il faut ñu nangu ne dañoo daanu waaye sax si lu yàggatoo dara ku nekk si ñoom daal yi xam fi nga féete dañ laa daan am yaa daan ki noonu ñu bëri ñi ngi xaar yi nga xam ni moo di résultat yi niki tey si xemees ji waaye nag yi nga xam ni moo jaaxal ñu bari daal di leen tiital moo di yooyee résultat est-ce que du am benn njubang boo xam ne dinañu ko si def ba tax na sax jamono ji fi nga xam ni moo di Ndakaaru gis nañ fa ay takkateer yu bëri yoo xam ni dañ fa wàcc ngir daal di taxaw jëm si wàllu sécurité bi bu baax a baax ndax yooyee résultat daal di mën a aw si yoon